onze billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi macha allah ñuy sant yàlla di julli ci sang-sang yi Seydina Mohamed salaatu alayhi wa salaam di à commencer par le directeur le PDG le directeur tout le personnel de VA TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar lu bare bare waaye di nuyu ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine kilifa aada yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar lu bare bare ñi caabi féete gannaaw ñi tawat ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal suñ borom bi subhaanahu wa taala delloo leen seen njaboot waaye ñi nga xamante ne dañu am ay tolof tolof ñu ngi leen di ñaanal yàlla fajal leen seen tolof tolof bañ leen delloo si seen sago leen wax seen émission noo ko dunde doorati na émission waxtaan diisoo sottante xalaat niñ ko dundee bu baaxee am nañ ci wàll waaye it bu safaanoo am nañ ci wàll ba tax na ma naan leen cher internaute cher téléspectateur dañ koy teg ci table ji daal di koy waxtaane li ci positif ñu daal di koy jël waaye ni ci négatif nag ñu daal di koy teg ci poubelle bi ni ñu koy waxee saa su ne man leen nag duma ci wet benn yoon ndax dama ci ànd ak ñi nga xamante ne ñooy sama technicien yi jàkkaarloog man ku ci mel ni Fallou maa ngi koy nuyu di ko ziar lu bare bari waaye ku ci mel ni Adama it maa ngi koy nuyu di ko ziar lu bare bari naan leen bu rafetee ñoom la waaye bu ñaawee man la ni ma leen koy waxee saa su ne cher internaute chers téléspectateurs émission bi duma ci wet benn yoon ndax dama ci ànd ak ki nga xamante ne mooy sama doom ju jigéen ji Ndeya Ndeya maa ngi lay nuyu di la ziar lu bare bari. tata maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar bàyyi ngi ci jàmm. alhamdulilah sant yàlla. alhamdulilah yàlla jàmm <laughs> yàgg di nuyu tamit les fidèles téléspectateurs waaye tamit les amis internautes yi nga xam ñoo ñu bàyyi xel suñu ay plateformes digitales moo xam YouTube moo xam itamit euh, mm-hmm. Facebook ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne leen seen émission bi nga xam ne yéen ko taamul seen bopp di noo ko dundee euh, daal dinay door la sama nuyoo te nuyu ma la diaspora ñi nga xam ñoo nekk ci à l'extérieur ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax ndax ñoom ay jàmbaar lañ yi tamit mm-hmm. demu ñu des ñu ngi leen di zeex di leen nuyu di leen ñaanal suñu borom bi defal leen la ñu bëgg mais ndeya suñu émission noo ko dunde doorati na si la mm-hmm. première chaîne de l'espoir VA TV mm-hmm. mel ni dañ ko waxtaane woon mu def buzz mel ni dañ ko waxtaane woon ñu bëri gis ci seen bopp mel ni dañ ko wax waxtaanee woon ñu ne doyaluñu ci dañ koy continuer donc mhm. muy problème kast yi mhm. waaye ndeyaan nag du ma jóge foofu te nuyu ma ki nga xamante ne mooy euh, sama borom kër nee na ma ndey bàyyil casque c'est caste ne ko caste la xëy na langage bi la ak sama président président Moussa Samba ADP yi nee na ma ndey Njaay bàyyil casque del <laughs> wax donc kaste ah président Moussa kaste chéri mbéri kaste di Lydie ah eh, VA euh, yi dama leen nuyu di leen ziar tata di euh, Marie Pierre Xawa euh, Anta Diop ñëpp nuyu naa leen ziar leen lu bare bari tonton Sadio ko ñëpp a ngi ci biir waaye mel ni dañ doon waxtaane li nga xamante ne Ndeya moo jëm ci mbirum kaste bu ne kast ne géer mhm. ne géwél mhm. ne lawbe mhm. ne ñeeño ñu waxtaane ko bii passé mi ni ñëpp dañ ci gisoon seen bopp ndax bii passé ñu waxtaane woon lu jëm ci li nga xamante ne ñooy kaste yi tey nga jël sa nja doom ne doo ko may kaste doo ko may géwél doo ko may lawbe doo ko may tëgg ainsi de te pourtant tubaab bi bu ñëwoon bokkoo leen diine bokkoo leen dara indi ay millions danga koy may sa doom nanaa muy eh, kii eh, dama juum waa nanaa xam nga mhm. rakk la boo xam ne <laughs> dama tàmm di waxtaan ak moom foog ma a nanaa mhm. ndeyaa muy loo xam ne toujours dañuy wax ñoom ne ñoom doy luñu ci dañ bëgg tey ñu waat continuer ko parce que tey buñ la nee duñ la may gée géwél mhm, duñ la may law lawbe duñ la may ñeeñu ñoom it dañuy wax ne du ñu may seen doom géer exactement géer du say si kër gi waaw dërëm ak dërëm a a ànd dañuy dem balay gaarale ci kër gi wàcc sa ànd ànd boo yéeg fekk boroom mu dem toog mm-hmm, foofu mm-hmm. ndayaa mel ni tey bu ñu jógee ci kast yi dañuy dugg ci géer yi géer yi nga xamante ne dañuy dem sëy ci kër yi ñi nga xamante ne ñooy les kast mm-hmm. moo xam lawbe bi la moo xam géwél bi la moo xam tëgg bi la moo xam ñeeño bi la moo xam ci mu manti doom ndaya ñu fay dund di fa sëy di fa souffrir lu méttee métti ndayaa exactement tata comme di ko waxee rek la fois passée dañoo waxtaane li nga xam ne moom mooy problème mu caste yi nga xam ne fii Sénégal mu daal def buzz nit ñi daal di koy euh, daal di koy rafetlu bu baax a baax ba looloo waral sax tey ñu indiwaat li nga xam mooy thème bi. Mhm. ngir waxtaanee ko. Mhm. ndax loolu noonu boo koy waxtaanee fii bu at mi dellu sax mën naa ne doo jeexal. du jeexal mhm. ndax dafa nekk thème boo xam ne thème d' la euh, bëri na ñoo xam ne ñu ngi koy dund seen biir kër. sànq da nga lu am solo mooy ñi nga xam ne ay géer lañ nar a sëy si ci biir géwal wala dara si biir yi nga xam ne moom mooy ñeeño euh, entre autres léegi nag ñoom ñooñu noonu dafay am problème yu bëri yoo xam ne koy dund si biir kër gi imagine toi nga nekk géer ñëw see si biir kër géwal ñu lay bundu xatal di la wan ne la yow bokkoo ci ñun di lay wan ne deret bi daf ñoo rax di lay won lu bëri loo xam ne euh, ñu lay wan ne yow mii daal da di di la marginaliser di la teg de côté lu nekk ñu la koy teg dara waralu ko lu dul peut-être fi nga bokk ak ñoom fi ñu bokk moo bokkul mm-hmm. te balaa loolu sax seen ay doom lañu njëkk a waxal ne ko bul dugg ci ki nga xam ne mooy géer la mm-hmm. demal sa moroomu géwal mm-hmm. lan euh, lan moo tax ngay dem choisir koo xam ne bokkoo leen maanaam bokkoo leen comment dirais-je bokkoo leen euh, caste. léegi nag nga dem choisir ko bugg gën ci kër gi. yow di nga dund naqar. jabar ji dina dund naqar. waaye tamit ay parents am ñoo ko koy teg wala ay famille ñoo ko koy teg. te loolu dara warlu ko lu dul peut-être fi nga dem fi nga jëlee nga warul jëlee. mais dama ne ana lan moo waral. peut-être waroon nañ euh, poser wu la question à savoir que ne lan moo tax parents yi di bañ. Euh, géer ak géwal di sëy wala ñeeño ak tëgg di sëy lan moo waral au fait ñun am nañ benn explication boo xam ne ñu war nañu koo jox mm-hmm. mais malheureusement loolu amuñu ko mm-hmm. léegi di ko da ngay ñëw ñu ne la war a takk diw war a takk diw wala explication yi nga xam ne la koy jox c'est pas valable mm-hmm, nekkul loo xam ne au moins euh, si solide wala mun nañ koo téye ne ah lii de c'est vrai Mm-hmm. day nekk yoo xam ne amaana ay mm-hmm. détails yoo xam ne ay copier-coller lay doon mm-hmm. kon daal mun ne parents yi nañ gën a xoolaat bu baax a baax seen doxalin te xam ne ñu ngi lor xale yi sans pour autant ñu bàyyi ci xel parents yi nañ seetaat seen bopp bu baax a baax ñu ngi lor xale yi sans autant ñu bàyyi ci xel ndeya mooy li nga wax léegi duñ la jox benn explication amul benn explication buñ la mën a jox que ne bu valable que lii moom moo tax géwél bi mënul sëy géer bi lii moom moo tax géer bi mënul sëy géer amul benn explication bu dangay dem ci biir nga xool mais da gis ne xeebeel est-ce que des fois du xeebeel parce que tey da ngay ñëw da ñëw même ci côté géer ci côté caste yi quoi mhm. parce que boo nee géwél rek da nga mel danga nga benn mhm. parce que ñoom ñëpp la muy law bi muy tëgg bi muy ñoom ñëpp ci biir ñoom en général tey day mel ni intérêt la ñuy demee intérêt mhm. parce que li tax ma tuddee ko intérêt tey boo xoolee fenn rek la ñuy bañee fenn tey bu ñu xoolee xam ne yow sa situation demeewul noonu. ñu bañ yow waaw yow war nga joxe ay suukaru koor war nga joxe ay teraanga noo kii loxoom jotul gannaam kii mënuñu teral kii yaayam mënuñu teral. kii ñoo ko tane. Mm. mel ni affaire bi day dem ba ci biir mel ni lu jur jilo. léegi intérêt la laale léegi yow da ngay sëy si si kër gi nekk géer. Mm-hmm. nekk ko nekk ko kast géer nga. Mm-hmm, mm-hmm. nga ñëw sëy si si géer si kër gi. léegi lan la ñuy jëkk a xool. lan moo tax nga takk kii non dañ lay gaaral dañ lay sànni baat te xam nga lu ci gën a garaaw mooy mën nañ toog ak yow. Mm-hmm. moo xam añukaay bi la. moo xam waxtaan la naanukaay ataay bi jëw la wax si seeni i manière xoolante seen i bët. yow sans pour autant nga bàyyi ci xel sa wala nga xam ne yow la ñuy waxal nga bàyyi ci xel yow lañ ci waxal. Mm-hmm. des fois ñoom dañuy toog ku toog ku toog bañ tànn la jëkkër wala jabar di nga dégg daal. dëgg la ku toog ba ñu ba ñu defal la lii di nga dégg daal sans autant mhm. ñoom ñu bàyyi xel na yow seen doom moo ñëw bëgg si la takk la mhm. wala yow yaa bëgg seen doom nga ñëw takk te loolu sax te loolu sax euh, li ci gën a metti mooy que xale bi mun na ñëw toog sax ñu ne ko puusal fi géwal bi nga doon wala puusal fi géer bi nga doon wala lawbe bi nga doon te xamuñu ne yow Euh, au fait sa doom moo ko jur. Mm-hmm. moo ko jur amaana da am a kenn mais sa doom mooy moo ko jur. Mm-hmm. kon war nga ko xoolee ne boo boo ko xoolee bëtu géewal rek. Mm-hmm. bëtu lay doon. boo ko xoolee bëtu géer bëtu géer lay doon. man dama naan euh, ay géewal ak géer ak ñeeñ ak loolu amul place Sénégal. Mm. parce que Sénégal li ñuy wax benn bopp la kenn mun koo xam ñaar te mm. bis bu ñu demee ba naan kii géer la kii géewal la rek jàppal ne instant boobu noonu. Mm. à l' instant boobu noonu ñu ngi jël li nga xam ñu ngi xaaj boobu boobu ñuy wax. kon Sénégal am na loolu xam ne xaju fi. te bu ñuy wax dañ naan dëkk jullit la. dëkk jullit la dëkk jullit la ñuy wax dëkk dëkk boo xam ne solidarité. Mm. fi lañ ko fekk baax. Mm. lépp fi lañ ko hospitalité lépp fi lañ ko mm. fekk baax. léegi nag du bu dee nag euh, yow loolu yëpp bàyyiwoo ko xel. Euh, xalaatoo ko. di di di wax nit ki ne ko yow géwal nga waroo sëy suñu ko wala géer nga mm. loolu dama naan ñun ñi ngi créé benn problème boo xam ne mm. xamuñu sa ëllëg fa la ñuy jural mm. ndax gis nga fi koo xam ne ndayaa dogguma la géer géwél géer géer bi sëy si si kër géwél yi mm-hmm. nga taxaw naan ko géer nga bokkoo ci suñu raas mm-hmm. pourquoi kon léegi géwél yi ñeeñoo yi lawbe yi di am ay géer tay nga ni sama géer bu baax bi de mom moy sama géer dafa baax ndayaade mom may teral yow da ngay organiser dara wala nga bëgg dara nga dem ndaya moy sama géer damay mhm. dem ci sama géer yi ñu may ma mhm. te sa géer yoy tay bu seen njaboot duggé seen biir kër ngeen ne du fi dugg mais nak tata wax la benn affaire ak i ndax bu dé dama am sama géer go xamné par exemple suma nekkon nekkoon ma am ma am la comme géer mhm. nga yëkkat heure mu ñëw sëkk suma fëggé sa buntu nga ne ma maaleykum salam xaalis fu mu gëna bëré nga jox ma bo duggé sama kër dama la dàq ndax dama naan kii mën na maa teral dama naan na kii laa doon wër kon moo lay wan ne la intérêt lañ ci dugal mais fu seen intérêt nekk seen doom mën na faa dugg mais buñ xalaatee ne kii mënul leen apporter dara laa moom xalaat bul sa imaginer yow bul sa xalaat ne ñu may la seen doom te te te li ma ci gën a metti mooy tey kuñ fi jiñ géwél wala ñu jiñ la jaam wala ñu jiñ la ku ñuy tooñ ba ci jaami sax dañu ba ci jaami ba ci lawbe uude ay lawbe loolu ci bi nga bi nga bi nga néewee doole la dëgg la bi nga amul dara la ba ci géer ah. Mhm. ba ci géer gu dugg ci biir géwél. parce que tey tey tey waxtaan bi day dem ci géer bi nga xamante ne moo ñëw dugg ci biir kast yi. Mhm, tey yow tey yow dinañ la utal sikk. Mhm. dinañ la utal lu ñaawal lu la taxal dañ koy tooñ setul. amul woon loolu la woon. te pourtant boo demee ba yàlla may la yenn tey nekk fi ministre. nekk fi député. nekk fi président de la république. damay laaj ndax yow say défaut ya nekkoon dina feeñ xanaa say noonu ñu la bëggee tey taxal. yàqal <laughs> buñ la bëggee yàqal. mais tey bunt boo fëgg dañ koy ubbi. exactement njaboot goo fëgg dañ lay ubbil. Mm-hmm. kon lan moo tax ñu ne tey yow kii géer bi nga xam ne dugg na ci biir géwél yi mm-hmm. du am jàmm. Mm-hmm. ay doomam du ñu am jàmm te bi ci gën a métti xam nga ban la. tey ban boo taxawee yàlla boo am ay wujju peccor go ci biir kër gi. mu ci peccor gu nekk ay géwél ñoom ñu dem takk seen famille ci biir kër gi ñu nekk ay géwél léegi yow nga ñëw nekk géer ñëw sëy si nekk ca biir bu ñuy waxtaan dañuy nëbbatu sa wujju peccorgo yi dañ leen di woo ci nekk dëgg la dañuy waxtaanal mm-hmm. yow ab benn nit ka boo xam ne comme benn jànq bu ñu bind xam naa ku ñu bind dugal la ci biir kër gi boolew ñu mm-hmm. xam lan lañ lay boolee ci dara bu raxas beeg bale bi ak xew bi lu metti li mais tata dafa mel li ngay wax nii man gis naa ko xam ne dund na ko mm-hmm. Euh, géwël la ñëw sëy si biir ay géer mais ñoom ñoo ñu ne am na ay wujju peccorgo comme ni ñu ko expliqué nii am na ay wujji peccergo yoo xam ci biir kër ga mais ay giir lañ comme comme goro mhm. léegi nag goro bi day jël ñaar ñooñu noonu taf leen ci wetam favoriser leen mhm. mm, day won kee ne ko yow bokkoo ci ñun dangaa ñëw jox ci ñun mhm. léegi nag du coup bu dara xewee balaa ñëpp dañ koy yëg kee ko yëg bu xew amee dañuy bàyyi ba xam ne xaw bi leen mu ñëw ñu soo ko koo wax maanaam bu xew amee en lépp rek pour wan ne ko famille bi sax famille bi bu amee waxtaan booy ñëw ñu naan noppi leen mi ngi ñëw famille bu amee xew sax pour que kooku noonu mën cee dem c'est tout un problème. Mhm. du coup pour wan ne ko yow bokkoo ci famille bi. Mhm. yow géwal nga. Euh, si nga waaw effectivement non moom géwal la ku jigéen ki. ku jigéen ki géwal la. Mhm. maanaam pour vous dire que ni comme que yow géwal nga bokkoo ci ñun. laa am na lu bëri loo xam ne après ngay comprendre. mais pas instant bi. juste pour vous dire que ni ñoom tamit dañuy dund lu métti waaye tamit comme ni nga wax. am na am na ay xale jigéen yoo xam ne ay géer lañ buñ demee ci biir kër géwël yi wala kër ñeeñoo yi tamit dañ fay dañ leen fay bundoxatal bu baax a baax a baax ba ñoom dañ koy sentir gis nga fi ñoo xam ne divorcé nañ nax loolu ndax la nax dañoo dem may ñu leen jàmm may ñu leen salaam mm-hmm. ñu daal di ñaan baat te pourtant ak ñuy bëgg seen borom kër. Mhm. mais tamit dafa am loo xam ne sëy dafa ànd ak xel mu dal. Mhm. mais bu dee yow sa xel dalu heure boo xëyee ñu ngi lay tendance. Mhm. yow géer nga heure boo xëyee ñu ngi lay tendance yow bokkoo ci ñun. da ngaa juuf ci ñun. da nga sëyaan nga fi. lu nekk ñu la koy wax si biir bopp bi am na loo xam ne tamit attanoo ko nit ku nekk nit nga mën a doon. bëri na ñoo xam ne tas nañ seen sëy. ndax affaire te neexu leen. ndax te neexu leen. jotewuñu ak seen borom neexu leen. mais tamit xam nga tamit dañoo nekk situation boo dëkk boo xam ne jamono jii nii Euh, mun na affaire dafa metti mm-hmm. sa borom kër boo ko xëy jëla ma appartement lu mu koy fayee amu ko amu ko boo mm-hmm. ne ko jëla ma fii benn studio amaana weer ak moroomam dafa jege. léegi nag ku jigéen ki comme ku mënul dund ci euh, situation boobu noonu. day obligé dem kër yaayam. bu dee ku jigéen góor ki tamit amul les moyens. day obligé tamit bàyyi fa jabaram. léegi nag kon day nekk loo xam ne euh, famille ñu ngi créé benn problème boo xam ci diggante xale yi. ba pare xale yi nangu la ñoo sëy bu jigéen ki demee kër yaayam. Mhm. yàlla bu ko ku góor ki fekki kër yaayam beneen problème bu gën a garaaw ñoo na ndax dinañ ne xale bu jigéen bi dafa génn génn jëkkëram. yàq sa der. way bu bon topp la way bu bon daal di lay topp. Hmm. wax nga ko sànq si sa biir yi wax. Hmm. da ngay dem toog si seen biir ñu mel ni ku la ignoré. mel ni faalo seen programme te bi ci gën a metti des fois ñuy taggaate xam nga li li géwél man géer manu ko. bu ñu nee way géwél la man. Hmm. <laughs> bu ñu nee tagg géwél la man lu ñuy wax géwél la man des fois pour tooñ la pour tooñ la kolas la. pour dévaloriser la dañuy jékki-jékki tey sa wujju peccer ko boobu xam ne seen mbokk la ñom mom la tak indi ko ci kër gi ñu bokk ñom dañu jek jek di ko wee loo bokk ki ngay seyel deug la do fi ja doo fi jambour do fi xawma ñu koy tagge tagge tagge la ñu ngi lay bëgg la wala sa borom kër wala sa borom kër ñu ngi koy tag mom borom mom borom nga ko man ma mën tag sama borom kër ma mëna tag sama borom kër des fois sax ñu ñu la ñu la tag yoy ngay tag sa borom kër des fois sax dañ la ci xass deug la dem deug fëne yaal ñi ngi dund des fois dañ la ci xass mhm. yow nga ne man dama am samay guerre Mm-hmm. tay man buma jaxlé damay dem séti sama guerre mm-hmm. sa guerre gogou tay domam ñew ci sa bir kër di sey nga ne duma ko may jamm duma ko may salam bokul sama mm-hmm. xeet bokul sama ta ndaya lolu yépp tay boko xolé source bi lépp lan la intérêt intérêt ay intérêt rek lañuy liggéey ki man na man na ma defal man na ma yor parce que dañuy dem ba da ngay tok nana euh, ki euh, ndaya sama ben rak mës na sëy si ben kër gëwel bu pikin nee na moom amul doole. dëgg la. amul mooy mais am na benn wujju peccor goom boo xam ne géwél la. Mm-hmm. yaayam tey ku ñuy tudd fii na ci senegal ku siw. Mm-hmm. nee na moom dañ dañ leen dañ leen dañ leen wax ne tous les jours que jëfee ñoom dañuy togg reer cere. Mm-hmm. ñoom seen reer cere lay doon. nee na bu ma ñëwee nee na fitna biñ ma njëkk a teg mooy dangay dem jëndi dugub. nga wal dugub bi. nga soq ko yaay soq ne waxuma dugub buñ soq ne yaay soq yaay wal mhm. comprendre nga comprendre yaay def lépp yaay dem mooñ yow yaay tay mhm. ñee na ma nangu loolu ndax dama bëgg sëy te amuma moyen bi nga xamante ne man man mën naa leen jox mais ma nangu loolu may mhm. togg may yekk ma ay moom mooy def ne wu ci peccar goom bi koor jot mu gaaree kat kat la def si ay teraanga ay suukaru koor genre ba mu jeex nee na mu ngi ñëw wàcce def teraanga moom amul. dëgg la jëkkëram la yàlla xam doy na jëkkëram sax dañ dem ba lusidul leen des fois day ñëwee melokaan boo xam ne dafay ñaaw. dëgg la man maay jël ma sang ma tëral ma def lu ne mu ne ma man li ma amoon ci matériel indaale ko may say seet sama jëkkër daf ko jaay. Hmm. ndax da doon jël butéel bi. Mm-hmm. nee na lépp may toog di muñ. nee na du sax bu bouché moom mooy débouché. Mm-hmm. nee dem nañ ba dugg ci néegam pour xeex ka ñu jël buntu néegam ñu wekk ko ñu teg ko. Mm. mu dem seen biir kër mu jël buntu waañ wa mu ñëw wekkaat ci buntu néegam mm-hmm. buñ toogee di ko gaarale ndaw si indi teraanga yi indi lépp ñu di ko ko gaarale di ko wax ne yow mënoon ngaa mel ni ñama xam dëgg la kuy sayta mënoo am teraanga dangaa war a toog <laughs> léegi loolu est-ce dina may ndeya xale yi fit bu ñu mën a toogee c'est normal est-ce que dinañ am benn benn benn maanaam benn xel bu dal bi. Mhm. ba mën a sëy ba mën a gérer seen sëy ba mën a téye seen jëkkër ci seen mhm. biir nekk ndax day dem ba jàpp leen ba seen biir ne guddi day jot sax. Mhm. kenn ku ne war na xam ne jigéen dafa war a jonge ci biir néegam. nga war a sol sa chemise de nuit da a a boobu lay jàpp dalay découragé loo ci sa sëy gi boo tëddee ba nga sangoo la nga soloon. moom ngay sol wala nga jël benn sër nga tënjoo tëdd. te en plus tata euh, am na xale yoo xam ne léegi jamono ji euh, li ñu gis seen ay mag di ko dund. ñoom balaa ñoo sëy si dañ koy gànnaayoo. maanaam bu ñu xamee ne ñoom ay géer lañ ñu ngi dem fekk ci ay géwal. dañ naan xam nga li ñuy wax balaa ñoo dem maa ngi dem suñ ma mayee jàmm may leen jàmm. suñ ma mayee jàmm ma xañ leen jàmm wala ma ñibbi. sëy bi contrat léegi nag du coup kon xale yi ñoom loolu noonu préparé nañ ko bien avant.

Euh, ñi nga xam ne xale yi ñoom la ñuy fekk si ñoom ñoo war a wane jàmm mm-hmm. bu dee kii gii di ñëw sax bokku seen xeet mais won ko ne suñu xeet ay noobu lañ mm-hmm. ku ñëw dañ lay jàpp ku mm-hmm. ñëw dañ lay jàppee comme suñu bopp mais bu dee defoo leen noonu xale yi ñeneen ñi dinañ tiit wala ñeneen ñi buñ ñëwee seen kër dañ ko soppi sans détail bataille mi ngi noonu mm. léegi nag du coup yow mii nga xam ne yow yaay parent bi wala yow yaay yow yaay goro bi nga xam ne goro xale bi mm. ngalawaay bu ñëwee may ko jàmm ak salaam mm. wan ko ne ko fii nii ku ñëw moo xam foo bokk géer ñeeñoo law bi ak lo munti doon bo ñëwee fi dañ lay bolé suñu biir def lo comme suñu bop parce que suñu jëkkër parce que suñu doom mo mo la bëgg mo mo la bëgg mm-hmm. mo la tan ci jigeen ñëpp ne yow la bëgg mm-hmm. mais amna goor ño ñoo tata li ñuy wax ni ñom ñu koy dund bu baaxa baax amna goor ño ñoo ay géer lañ bëgg ko xam ne euh, géwél la wala law bi wala ñeñu mm-hmm. mu demee ci kër goor nag pour ñaar jabar duñ ñen ko may duñ ñen ko may dañ ñan ko yow lan nga mu ne man lii laa mu ne man géer la ñu ne ko sama doom du sey géer est ce que ndaya amna ko koo ben mariage bo xam est-ce xam nga jouru mariage bi. Mhm. ci 5 heures ci jàkka ji si lañ annulé mariage bi. ah bon. jouru ndax la ndax problème caste. caste. ok <laughs> non kii nan la tudd kii nan la tudd kii fan la bokk non si sant yi surtout non yi. sant yi sant dëkkul fenn. Mhm. <laughs> sant dëkkul fenn tey dangay dem ci mbaay. Uh-huh. mbaay am na am na am na ci géwél géwél tey boo nee mbaay rek tag géwél na ngay. ak dafa mel ni dafa mel ni yooyu tamit ñoo gën a ñoo. ay caam ay tëgg. waaw caam mais est-ce que xam nga ne tukulóor boo santee caam buur nga. pourtant man ñun am a avancer naa boo xam ne caam lañ sant tey pourtant nekkuñ ay géer lañ ay géer lañ tey nga dem mbaay ci tukulóor ci pël ci tukulóor nga mhm. dem ci mbaay mhm. am na tamit nuñ ma ci expliqué woon defe naa ay buur xaw ma ay lan lañ mhm. kon mbaay dafa am ci géwél dëgg la caam dafa am ci tëgg am ci géer ci côté tukulóor la kon donc tey nga ñëw ba bisu mariage. Mm-hmm. nit ki joxe war garam joxe yëpp ba biir jàkka ji ñu toog. Mm-hmm. ñu àndi la mariage bi ndax kii géer la wala ndax kii géer. te ñoom nee nañ ay jullit lañ de. te nee nañ ay jullit lañu. dañuy <laughs> julli dañuy or dañuy jaamu yàlla. seen jaamu yàlla des na wala seen jullitee sax laay wax. <coughs> des na ndeyaa nga dem ba ci biir. Mm-hmm. man bi ma ci gën a metti mooy boo toogee wax naa ko sànq boo toogee bañ tànn la jëkkër wala jabar. dañu fàtte yàlla mooy tànn jëkkër. dañu fàtte ne yàlla mooy tànn jabar kon mm-hmm. mm-hmm. ñun dañu war a seetaat suñu taxawaay sëy yàlla moo koy tudd ci aras ñun dañu war a seetaat suñu taxawaay war a xoolaat li ñuy def ak li ñuy wax mm-hmm. parce que nag ah, lu mënta ñaaw dafay rafet ndeyaa waxaatuma beneen nga toog xale yooyu tey nga doon terroriser seeni yaay xale yooyu tey nga doon terroriser di leen toroxal di leen dàq ci bassan yi dëgg la di leen dàq ci say tokkaay di leen dàq ñu la nga leen di gën gën a léeg seen yé sa yeneeni sat waa ndeyaa xale yooyu ñoo màgg te bu ñu màggee doon dara. Ndeya xale yooyu ñoo fi nekk ministre tey. la Ndeya xale yooyu ñoo fi nekk député tey. Euh, dama gis benn femme. Mhm. ci affaire caste yooyu defe naa côté papaam ñooy géer xaw ma je ne sais pas. côté yaayam mhm. am na problème bu si génn. yaayam sonnoon loolu yaayam côté papaam mu ñooy caste. Mhm. yaayam sonnoon loolu ci sëy boobu dañ ko xeex xeex ba indi seen mbokk indi takkal ko ko. ok bu xante ci kër gi. mère bi di pour mu wujjanteeg moom. maire bi ay doomam màgg na ñëpp dañu am situation waaye léegi maire bi benn doomam am na situation nekk cadre fii ci dëkk bi nag. Mhm. nekk fi cadre. Mhm. xëy tabax nga dem këramu lépp ah. tey ka gënoon a yaayam xam nga lu mu ko wax. Mhm. sa yaay de bi mu méttee man rek la gisoon maa ko daan maa ko daan maa dalal. te kooku gënoon a sonal yaayam. ok kooku moo gënoon sonal yaayam mu ne man maa daan dalal sa yaay bu daan métti. dëgg la. maa daan waxtaan ak sa yaay bi daal sa yaay sama xarit la ma sa doon mhm. parce que xale bi tekki na tey xam na xale bi nekk na ku ñuy tudd tey mhm. xale bi tey mën na leen a fajal seeni soxla ba fajal seen téeméeri morom seeni soxla affaire da daal Sénégal ku ku fàttali ko da ngay soxor da ngay soxor mhm. mais des fois nag man damay wax na ah, dama koy wax de ku fàttali ko da ngay soxor de <laughs> euh, mais des fois fàttali ko day baax nag <laughs> gis nga ndaya des fois da fay bax xam nga lutax tax da fay bax gis nga des fois dina metti xetu metti go xamne mhm. ah man bok ah, man man man man xaw dama negate xaw dama nekk de temps par personnel wa dama par personnel man man ni may gisse ni may dund mhm. des fois da fay bax nga des fois ñu def la lo xamne wala ñu yakal la lo xamne ci sa adina ndaya doto ko meuna fatte deug la ndaya doto ko meuna fatte ci sa kawsu deug la bàyyi bu fàttali koo soxor. Mm-hmm. olof a ko wax. Mm-hmm. mais des fois dinañ la yàqal si su dund. loo xam ne dootoo ko mën a fàttali. te imagine ngay sëy sa borom kër bëgg ko nopp ko lool bëgg ko lool. Mm-hmm. ngeen jur njaboot jur ay doom ñu xëy fexe ba taxale la ak sa borom kër boobu. ci ay affaire yu ñàkk fay ay affaire yu ñàkk léegi sa njaboot màgg nekk dara tey ci société bi. waa ndeyaa nga ñëw ne yow tey dangay toog sama jarbaat la bàjjanam laa wala nijaayam laa wala papaam laa ndeyaa man may seetaan loolu te duma fàttali ko li ma yàqal mais ta xam nga ne loolu daa bëri Sénégal moo gis par exemple koo xam ne mooy moo lay wërale dëkk bi ne bu ne ne sa doom wala kooku mère boobu noonu kii bu mu takk sa doom ndax parce que géew a géer la wërale la àddina bi yëpp ba kooku mm-hmm. noonu bañ mm-hmm. yàlla may la beneen wër beneen beneen borom kër mm-hmm. ngay sëy ak moom. Euh, mu am tuuti xaalis wala ngeen yor. kooku noonu yàqaloon la ci kéene nga xam ne moom nga gënoon bëgg kooku mooy ñëwaat ne moom sa xarit la. effacé lépp lu mu masoon a def effacé lu mu musoon a wax ci lu ñaaw ci yow. wala lu mu musoon a def. da koy effacé léegi nag du coup foofu nag laay waxee ne boo fàttaliku da ngay soxla na foofu boo kooku bu fàttalikoo rek. dinaa fàttali def njombe mënoo maa tàqali gi ma bëgg ba pare may fàttali di leen fàttali di leen fàttali ne yéen ngi seen biir émission noo ko dundee. ci mhm. VA TV la première chaîne de l'espoir damay négasi ko tuuti ñu daal di dugg ci page pub bi daal di dellu si waat jàkkaarloo di yéen chers internautes chers téléspectateurs. waaw gannaaw bi ñuy jógee ci li nga xamante ne moom mooy page publicitaire yi dañuy dellu si li nga xamante ne mooy euh, na ko dundee di émission waxtaan di soo sottante xalaat fii si VA TV la première chaine digitale au Sénégal nee naa leen nii lay demee saa su nekk ma ànd ci ki nga xamante ne mooy ndeyaa sama rakk ji. Mhm. waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama technicien yu ñaaw lii muy fàllu ak aadama ni ma koy waxee saa su ne bu rafetee ñoom la waaye bu ñaaw it ñun la ah. dëgg la <laughs> noonu lay demee waaw ndeyaa ñu ngi doon waxtaanee tollu woon ci fi nga xamante ne gannaaw bañ jógee ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, gée caste yi dugg ci biir géer ñi tey dañuy dugg ci géer ñi dugg ci biir caste yi mm-hmm. ndax ndeyaa wax nañ ko sànq waxtaan nañ ci lu bari mm-hmm. waxtaan nañ ci li nga xamante ne mooy gaaral liñ lay gaaral mm-hmm. niñ lay xoole sa dundin ci biir kër gi ni muy méttee dem ba mu lay pousser à ce nga demander divorce génn kër gi pour nga am sa jàmm mm-hmm. parce que dañuy wax ne say ñett la mm-hmm. nga am jàmm toog nga ñàkk jàmm muñ feebar yore feebar boo xam ne dangay dem ba doo kenn dootu la bëgg mm-hmm. ñu dem takki jabar tagaat si sa kaw mu gën a métti ak nga tas sëy bi dem wa ilaa nga dugg biir bàmmeel ban la. mais man moo ko si mhm. jar teg kenn tegu la ko ku du sa nawle. dëgg la sa nawle moo la koy teg. Mhm. sa morom moo la koy teg nit ñi yow moom moo la koy teg nga dem nag ba say doom màgg. Mhm. say doom nekk nit ñoo xam ne tey am na lu ñu service société bi. nit ñoo xam ne tey ay doomu àddina la ñan laa tuddee doomu àddina moo ñi nga xam ne tubaab la macha allah nag dañu màgg. yàlla may leen taraanga ñëppay doon seen i yaay ñëppay doon seen i papa ñu doog a ëlbatiku nag bëgg a ñëw jur leen. doog a ëlbatiku bëgg a ñëw nekk seen papa seen nijaay seen umpaañ seen bàjjen ndey Mhm, mhm. mi ngi noonu tata nga wax lu am solo macha allah moo lay won ne boo tekkee wala nga am noo mel ne euh, da ngay daal di bëri ay yaay. Mhm. da ngay daal di bëri ay papa lool sax te fii Sénégal dañ ko fiy gis bu baax a baax mais man dama naan par parfois damay doxañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi. waaye tamit góor ñi. par exemple boo nekkee géer yaa ngi nekk koo xam ne euh, géewa excusez-moi waa géwal la wala ñeeño la wala lawbe la kooku noonu ca doxaan ba nga koy laaj ba xam yow say parents. dinañ ma accepter oui ou bien non. xam nga am na lu bëri loo xam ne mbëggeel dafa doy waar de. dëgg la boo xesee ba xool ba bëgg li nga bëgg xoolatoo ca dara. Mm-hmm. te am na ñoo xam ne tey bu ñu ñëwoon dina seetse bëgg la takk. Mm-hmm. te yaa ngi lijjanti bu ñu nee géwél danga naan bëgguma man du ma sëy ak géwél. wala géer laa man du ma sëy ak mm-hmm. mais il suffit que yow bëgg nga rek xooloo géwél la xooloo géer la xooloo dañ koy tooñ xooloo dara yow lan nga xool nañ la ko may nga dem sëy. waaw loolu c'est vrai loolu nga war a xool nag parce tant que jullit yow loolu rek moo war a nekk sa biir sa xel mi lan la jullit la mi ngi julli mi ngi li nga xam ne yàlla mi ngi koy euh, maanaam bëgg na ko moom ci jaam bi jaam bi mi ngi koy def amaana loolu nga war a xool mais tey jii nii dañoo nekk ci beneen Sénégal boo xam ne jamono ji xoolatuñ sa ba xam yow jaa ngi julli wala li nga xam ne yàlla mi ngi ko digle yaa ngi koy def waa waawula déet xooluñ loolu leen la ñuy xool mooy que lan ñoom géer la wala géwal wala problème affaire caste yi kese la ñuy xool. Mm. la ñuy critères yooyu rek la ñuy jël pour ta tànneeku borom kër. wala pour mm. mayee ko seen doom. alors que nag warul demee noonu. léegi nag yow mi nga xam ne xale bi xam nga ne Sénégal bii laa nekk. Mm. ngallaawaay naa teel lijjanti ba xam waa ji lan la. Mm-hmm. bu dee waaju ji la mu leer na ma ne samay waajur de waxoon nañ ma ne ñu bëgguñu géwal maanaam géwal su ñuy ñaan si ma duñ nangu. di faa xam duñ ko nangu léegi yow di nga ne ah man de samay parents lii la ñu waxoon lii. ngeen mën koo lijjanti dès le début balaa muy gën a sori bu dee tamit ku góor ki xam nga ne ku jén ki géer la te seen waa kër bëgguñu ay géer nga teel ko ko wax. mais lu si seen yoonu waa kër ba ñuy bëgg ak ay ak ñuy bañ. mais tata bul fàtte ne bul fàtte ne bul fàtte ne xale bu góor bu takkee soxna waajuram la ko takkal. bu dee da koo yóbbu waajuram bu ñu ko takkalee soxna doomam takkal ko soxna indil ko ci biir kër gi. Mm-hmm. mu mën a boole doomam bu góor ak soxnaam uuf ak bépp caprice. mu mën a am parce que doom bu jigéen dafay am caprice nekk ci biir kër bi. Mm-hmm, mm-hmm. nga accepté caprice yooyu. téye ko ci uuf ko ci kon doomu jàmm sa doom gis nga damay wax ne muusuñu. xam nga lu tax muusuñu lu tax muusuñu. Euh, Ndaya. sa doom bu góor takk na ki mu bëgg mu indi ko ci biir kër gi. nga jël ko bundu xataan. jël ko sonal ko ci ñaar. problème sur problème. bokkuñu bokkuñu waaso xaw ma waaso. xaw ma waaso waaw bi waaw. Mm-hmm. wa ilaa ndeyam mënuma teral wala xale bi mënuma teral. Mm-hmm. kon donc jàmm du am. dëgg la sama doom bu góor dafay dem seeti ku ma yaayam mën a teral wala ku ma mën a teral mu indi ko ci biir. Mm-hmm, waa sa doom bu góor kooku la bëgg. sëyu intérêt ki mu fi indi kooku la bëgg sëyu intérêt. waa nga war bundu xataal nag parce que nit ñi xale yu góor yi. dañu bëri te bokkuñu de. dëgg la am na ñoo xam dañu féetewoo seen yaay lu ñu wax noonu la seen yaay mën na leen a yàqal lu ne ñu accepté ko. góor yaay may ma ñeexi. góor yaay may ma ñeexi ni ñu koy waxee ñi ci des. ñoom dinañ la jox sa cër. Mhm. li warlook yow dinañ ko def waaye seen vie privée bu ci dugg. Mhm. dafa am fu ñuy yem ak yow si seen jabar ak seen mhm, doom. seen jabar dafa am foo yem ak ñoom seen diggante ak seen yaay. am ñoo xam ne ñoom seen yoon nekku ci seen njaboot la ñu gën a considéré. dëgg la. man nag bi ma ci gën a kii mooy deuxième bi. Mm-hmm. fonkal sa yaay. Mm-hmm. waree fam dee ko def. Mm-hmm. sa famille. jàppale leen jox leen ca respecté leen mais amal fu ñuy yem si sa vie familiale. am naa li nga bëgg a wax. comprendre léegi yow nga jël sa ja sa doom ki mu fa indi nga bund xataal ko sonal ci affaire caste ci affaire ñàkk fayda détail sa doom commencé stressé parce que yàlla dafa bind dafa am ñoo xam ne dañ mën a dékku stress. dëgg la am ñoo xam ne bu ñu stressé di jeex. di jeex wala ñuy dee sax ñu. suuli leen mm-hmm. wala seen àddina yàqu xamuñu problème. mais nag mais li ma ci métti mooy que parents yi loolu duñ ci bàyyi xel. duñ ci bàyyi xel conséquences yi seen yoon mm-hmm. parce que tey yow ku jigéen ki ñëw ci kër gi sëy si. Mm-hmm. problème yi ñëw ngay koy teg problème di ko teg stress di ko teg sa doom bu góor. ba finalement tey sa doom ju góor am na problème moo xam dafa dof. moo xam da ko jaral mu dem tux Mm-hmm. mu naan sàngara pour problème yi jeex si boppam yow nga dem surtout nag liggéey bi liggéeyante bi. te boobaa. dañ lay liggéey di la dëddaleeg seen doom. bu boobaa gis nga bu xale bu góor bi jëlee ne ne dem jël butéel bi wala muy def lu bon xam nga lu ñuy wax jabar jee ko liggéey. jabar jee ko liggéey. wala jabar jee ko teg pression. <laughs> ba mu mel noonu. dëgg la léegi nag ñu jóge foofu ñu dem ci sëriñ di leen dëddaleeg seeni jabar yaa ngi togg di jox sa doom muy naa mm-hmm. lekk yaa ngi koy sang yaa ngi koy ne te dañuy wax ne sëriñ bu bari sëriñ bu bari baaxul ci doomu aadama maanaam waxuma aar sa bopp may jërëjëf bi sotti eh, ndeyaa mm-hmm. maa ngi koy sëriñtu sama doom la maa ngi koy sëriñ day dem ba dégg naa si li ñu wax dina dem ba yàqal ko lu bareem ci àddina waa léegi sa doom ñaanuñu ko yàlla dem na mm-hmm. ba dof na wala dee na wala pression la xale bu jigéen bi tas ndànk sëy ba ah dem yoonam dem yoonam <laughs> am na beneen jëkkër sëy léegi yow yaay ji yaa perte ku jigéen ki perte de yow yaay ji yow yaa perte. non ku def lu bon moom saay boo paree yaa ciy wéetoo. yaa ciy wéetoo yow yaa perte noonu la demee. Mhm. léegi nag ku jigéen ki am na beneen sëyam dem na sëyi. Mhm. ku jigéen ki mi ngi nekk ci leneen kon balaa caag yow doo tëye sa doom tëyal ko jabaram mu am conscience tranquille bu demee tëddee nelaw bu liggéey jee xelam dal lu mu def xelam dal. Mhm. yéen ñëpp ngeen bénéfici ngeen bénéficié wu. loolu loolu bu ñu ko defee dañu nekk ay parents yu baax am nañu am nañu am na ñoo xam ne nag macha allah ndax euh, bu ñëpp yemoon am ñu gédd seen cax am na ñoo xam ne ñoom euh, jaamu yàlla mm-hmm. bi la ñuy gën a xool mm-hmm. critères yi nga xam ne moom la war a tànnee soxna wala moom la war a tànnee borom kër ñoom moom la ñuy ba léegi ni may wax ak yow mm-hmm. kon cela veut dire am na ñoo xam ne gëm yàlla bi mu ngi ci ñoom ba léegi mais dafa am ñoo xam ne ñoo dañ ne ñoo gëm yàlla mais wóoluwuñu wóoluwuñu yàlla ndax ñàkk wóolu yàlla weesuwul yow nga jël sa doom nga sa doom duma ko may géer ndax lan ndax euh, bokkuñu waaso lan may waaso fet liggéey dong parce que bu dee géwal bi moom affaire tëgg maanaam moom mooy moom mooy liggéeyam bu dee lawbe bi lii la bu dee lawbe bi yat yett la ku nekk ak sa liggéey léegi nag euh, sa euh, maanaam comment dirais-je en fonction ci li ngay liggéey euh, moom lañ lay woowee maanaam ci nga xam mooy lawbe bi di jatt ñu ko woowee lawbe uude bi di ëw ñu ne uude la kon en fonction li liggéey te lañ lay wutalee tur kon mën naa ne loolu noonu liggéey dong la kon jarul nga ci naan comme que kii waasu bi la bokkum te bokkuñu waaso du ma ko may sama doom wala duma ko may sama kii amaana warul demee noonu. Mm. lenn lañu war a jiital mooy que euh, gëm yàlla te xam ne lépp lu am moom la. Mm. comme sànq comme euh, la fois passée yaa ngi doon ko wax yaay am na ñu naan tëgg su ma léttee sama karaw dagg sama karaw dagg day dagg. Mm-hmm. te yow gëmoo ne sa karaw bu daggee yàlla la. kon moo lay wan ne wala bu ma wasinee doom bi bu nekkee ci kaw lal bi tëdd bu tëgg duggee ci néeg bi doom ji day dellu maanaam doom bi dafay gaañu lii bi doom ji day gaañu léegi yow doom ji moom ah bu yàlla moo fi indi bu ko waree jël da koy jël jël que ça soit géer dugg fa law bi dugg fa géwél dugg fa da koy jël kon moo lay wan ne ñun dañ ne dañoo gëm yàlla mais wóoluwuñ ko à 100 pour cent ndax yàlla boo ko wóoloo lépp lu ñëw dangay xam ne moom moo ko moom moo ko waral te lépp lu mu def daa gën mm-hmm. yow da gis ñaar ñoo xam ne dañuy sëy par exemple sëy bi du mat sa deux ans. Mm. yaay ji la waxoon naa la ko. Mm. ñenaa la bul takk kii kii jigu la kii defu la lii kii defu la lii. Mm. day mel ni comme si ñoom. au fait seen xel la ñuy utiliser mais euh, defatul li nga xam ne moom mooy li war. Mhm. maanaam loo xam ne moom la ñu war a def bien avant duñu ko def. Mhm. léegi nag dem dañuy jël lépp euh, takku ko ci wàllu kast. Mhm. wàllu kii géer la kii géwël la war a sëy ak moom war a def war a defali moom. am na loo xam ne wax dëgg fa neex yàlla ñun war nañ koo dépasser. ndax nu sommes au vingt et unième siècle te xale yi am na xale ma su ma gisee xale buy toog. naan naan man euh, par exemple duma takk géwal du ma takk géer te xale bu ndaw man dama lay xoolaat parce que dama naan yow lii nii temps bi dépassé nañ ko yàgg na wala ñu naan la ngay labat ñu naan la mbaa takkoo géer mbaa xale bi du géer loolu noonu suñu parents yi ñoo ko dese woon ñoom ñoo ko doon wax léegi ñun ñi nga xam te au vingt ñoom unième siècle lañ nekk am na loo xam ne ñun dépassé nañ ko mhm. géer a géwal je m'en fous mhm. li am solo mooy que la na nekk jullit rek di julli. di ju mu ba pare ndayaa bi ma ci gën a metti beneen la. Mm-hmm. danga koy takk nga indi ko ci biir kër gi. muy sëy ci biir kër gi mu la doon fekk ngay liggéey liggéeyatoo mu doon fekk ngay am weccat sa marché di dox doxatul. ñu naan la waxoon naa la ko. ñu naan la waxoon naa la ko bi nga ko takkee ba indi ko ci kër gi. la sa lépp dellu gannaaw parce que géwél la waroo koo takk géwél day umaate tëgg day umaate lawbe day umaate wala géer la. tëgg du sëy ak jéer. wala suñu deret bi kenn du ko yamul foofu de am na am na si biir émission bi ki ma wax mu ne ma. Mm-hmm. mais Ndeye Ndiaye est-ce que xam nga ne yaa ngi yéen a ngi wax kast kast géwél du sëy ak géer. Mm-hmm. géer du sëy ak lawbe. genre mais est-ce que xam nga ne tamit am na géwél yoo xam ne dañuy bañ tëgg. am na tëgg yoo xam ne dañuy bañ géwél. maanaam ñoom dañuy bañal seen biir si seen biir am na lawbe yoo xam ne géwél du sëy ak lawbe. te ñoom ñoo waroon ànd tëgg du te ñoo waroon ànd xeex loolu noonu.

Mhm. réseaux sociaux télé les porteurs de voix les porteurs de voix Les nañu wax nañ sensibiliser les ñi. Mhm. nañu waxtaan ak nit ñi nañu delloo les nit ñi. Mhm. ndayaa wax nga ko lan les gëm mais. gens, yàlla mais wóoluwuñ les boo nga ne jullil. woor sa doom bu wul sax nga dóor ko. te boo di def lo xam Yalla mom la gëna bañ ci àddina. merci beaucoup. yàlla. mbir mi du jullee de. rek kese. Mhm. du or kese. leneen ak leneen ak leneen lu bari la lu ci ëmb. dëgg muy li nga xamante ne tey. Mhm. moo jëm ci kasti mooy li nga xamante sa dëkkandoo. Mhm. ndax euh, dinañ ci ñëw ndaya. mënuma gëm nit ñëw nga takk nit mu ñëw sa lu bari wàññeeku ñu ne amul wërsëg. waa ku jigéen ki ñëw na amul wërsëg <laughs> waa yow boo takkee ku jigéen ki fekk mu doon liggéey fekk mu doon am xaar yaroon otoom du bu tooy di daw léegi oto bu tooy boobu ñàkk naka liggéeyam ñàkk naka xanaa ko góor ki amul wërsëg ñoom toujours si jigéen ki moo amul wërsëg loolu ñoom xooluñu ko war a wala waroo sëyeg tëgg bi war a waroo sëyeg lawbe bi war a waroo sëyeg bi moo tax nga mhm. ñàkk li nga ñàkk ñoom gëmuñu yàlla ne fi mu nekk nii ne mhm. yàlla moom mooy maye mooy jël mooy xañe te xamuñ ne am na ñoo xam ne bu nekkee seen ay borom kër ah bu nekkee seen ay borom kër te seen borom ko demeewul noonu ñoom ñoo jël seen alal dépensé ko bu baax amna na géer yoo xam sëy geewal wala lawbe wala lu mu ti doon ñoo yor famille bi ñoo yor famille bi te xamuñu ko heure bu xeye ñom ñoom jox seen borom ko dépense seen borom ko bu amul ñom ñoo yëkkati seen dépense jox ko seen xaliss jox ko ne ko am joxel comme si ya ko joxe legi nak yow ci bëccëg bi ñu lay tendance te ñom xamuñ ne tay bo waxon kër gi tas amna ñu bari sutura né ya ma sank wax ci mais famille nañ baye tamit ma sank wax ci ben émission ben femme bo xamné dégg naa moo yoroon kër ga yor jëkkër jee yor lépp. te dépense sax moo koy joxe. duñ ko xam. lépp moo courant ndox lépp moo koy. Mhm. joxe mais pourtant dañ ko doon privé yenn yi ci biir kër yi nga xam ne moo koy fay ci biir kër gi. di ko joxe si biir kër yi bu liggéey jee waaj sax bu bu laajee añam ñu ne ko fii amoo fi añ. te pourtant moo koy joxe dépense parce que bu fayé ko wala de temps en temps moom moko koy joxe. non non mais moy joxe bu fayé ko mom mo yalla dafa def mom mo ëpp xaalis jëkkër ji. Mm-hmm. jëkkër mom moy liggéey jëkkër ji liggéeyul demee noonu. Mm-hmm. mais bu fayé ko day tudd ba xaaj guddi ba ñëpp nelaw mu tijji mu tal làmpam togo jëkkeeram lepp tek jox jëkkeeram bu xëyee dépense baa ngi ne mensualité. Mm-hmm. courant baa ngi ne ndox baa ngi ne. bon bi fayam mi ngi nii lepp daal ñu jóg jëkkëram engrais bu xëyee jëkkeeram li war ci kër gi mu def te loolu balaa ñu koo xam day fekk c'est trop tard. ñoo xam kañ lañ ko xam bi ndaw si paree ba war a dem. boobu lañ koy xam. te boobu noonu c'est waxu leen dara de ba weer dee. dañu war a fay courant ndox janq bi départ si na ko borom këram ne nag man amuma dara man li ma doon joxe diw moo ma ko doon jox te diw toxu na léegi da koy def si këram. te ñoo ko doon bundu xataal te ñoo ko doon bundu xataal amoo fi añ courant bi dafa cher doo branché sa télé mm-hmm. doo branché sa ventilo doo branché di ko sonal te moom may fay courant bi kooku bu nekkoon ab ndayaade ba mu taas nday njaay am nday njaay te bul comprendre la la lay wax kon moo lay ne am na jigéen ñoo xam ne am nañ sutura léegi nag sànq ñu ngi doon wax ci wàllu euh, nan lañ mën a def ba loolu noonu euh, ñu mën ko fee jële fi Sénégal mm-hmm. mais na na famille yi changer seen mentalité mm-hmm. te xam ne euh, wàllu géer wàllu géwal wàllu lawbe wàllu ñeeño loolu noonu tur kasa la. tur kasa la. tur dong la mais yow nit par exemple man su ma nekkoon euh, géwal est-ce que danga may xool ne man géwal la tànk waxuma la ko doo ko xam mais géwél yoo xam ne doo mës sa xam ne buñ la waxee dañ leen di bett. merci beaucoup tànk par exemple tànk waxuma la ko doo ko xam su ma ne la géer laa tànk waxuma la doo ko xam. am na géer yoo xam ne dañuy defe ne ay nit dañuy defe ne géwél lañ. dëgg la léegi nag moo lay wan ne am na loo xam ne ñun ñoo war a bañ loolu noonu te xam ne euh, tur kese la. mais waruñu ko dundee wala waruñu ko doxee wala waruñu ne ko di ko xoolee nit ne kii di géelam kii di géwél la kii lii la léegi nag moo tax ma ne la famille ñoo war a changer seen mentalité. Mhm. te xam ne lu am yàlla la góor ñi dañ bañ jël dara lépp loo xam ne lu bon la rek ñu ne kii sëy si biir kër te bokku ci ñun moo ko fi indi góor ñi tamit nekk responsable mhm. xam nga dama ne góor ñi tamit nekk responsable dëgg la mhm. yaay kenn mënu ko fay dëgg la ëmb juróom ñeenti weer dafa metti matu ni mat mettee nga boot mhm. ñetti at kon soo sañoon loo bëgg sa doom moom ngay am dëgg la mais na nekk muy lu baax mais góor ñi li tax ma ne nañu am fayda nañu xam lan mooy yaay mais nañu xam lan mooy soxna xam nga lan lan laa bañ nga danga gis ñuy jaxase ay nit dugg ci ay kër di jaxase mhm. naan ay sa yaay boo ko toppee sa yaay nga war a topp ak sa yaay boo ko ko kenn di genre ñu ngi jaxase mhm. mais yaay dala ëmb wasin la mhm. mais danga takk soxna mu ëmbal la ay njaboot te boo xamul daal li la euh, li la soxna mënal sa yaay mënalu la ko dafa am benn paa mu ne lenn la la sa yaay defal sa soxna rek la ko mën a defal keneen mënula koo defal ma ne ko muy lan mu ne ma sa yaay moo la mën a ëmb. nga wasin mu boot la di la sang di la raxas boo demee toilette. Mhm. lépp mu lay couche di la gis di la defal lépp. Mhm. di la nàmpal ci weenam. dëgg la di la boot di dem di ñëw. mu ne loolu la say nga dem ba doon màgg. Mhm. mu ne boo gisee booy solu ci nekk sa nga gis sa yaay. nga daal di gaawtu jël serviette. waaw daal di odd. yaa ngi dégg. yow bëggatoo gis sa yaay sa yaay gis sa daara lu ñaaw. la. waaw nga dem ba mën a takk soxna. waaw mhm. ah, sa yaay moo na doon dugg moo na doon teg ci pot bi di la. dëgg moo doon gis peut-être lenn sa yenn partie intime kan moo mhm. koy gis sa soxna. Mhm. sa moo la daan nàmpal émission la ngeen baal ma ci kàddu yi. mais dañ koy waxtaane mais après ku lay nàmpalaat. dëgg la non dañuy soxna. sa yaay moo la ëmbal. ëmbal. sa soxna moo la ëmbalaat njaboot. matuwaat. mu metti lool. Mm-hmm. bu doom ji juddoo ban sant lay lay lay. sant baay ji lay sant lay jël. Mm-hmm. kan yow sa yaay li mu la doon defal bi ngay xale nga màgg nekk mag am sa ker say waajur ba mënatu la koo defal kan moo la koy defal ci biir nekk sa soxna. Mm-hmm. kon cër bi nga war a jox sa yaay jox ko sa soxna. waaye man sama yaay bu waxee sama soxna teg ci baat ma dàq sama soxna ci biti du galanterie. dëgg la. téyewul sëy waaye tamit du galanteeri tamit sa soxna wax nga dàq sa yaay tamit. non déggoo ma de. noo dégg naa la tënk wax bi dama ne xam naa sa yaay. Mhm. bu ko yemale kenn. dëgg la sa yaay amoo fayam. Mhm. nit amul fay yaayam. Mhm. déggoo ma ne la sa yaay li war ci moom lépp. def ko booy ñaani sax demal ngir sa yaay. mais après tamit bu mu tax nga sànni sa jabar. ndax bu mu tax nga sànni gis nga am na yaay yoo xam ne dañu am personnalité am classe. dugguñu ci seen sëyu doom lijjantiwuñu xooluñu xam na lan la ñuy xool fu mu baaxee. noonu la ñu war a def ñu ne alhamdulilah fu mu bone am na am na am na goro yoo xam ne yaay yoo xam ne bala nga leen a gis tey sëy bi am problème ñu ñoo arrangé ko demaan. ñibbi dëgg la ñooñu ñooy parents yu responsable. man man bu ma amee soxna mu bëgg a yab sama yaay dama koy fase xam nga lu tax. Mm-hmm. man sama yaay kenn du ko yab. mais bu dee mais mm-hmm. xam nga fan laa waxee. mais ça fan laa waxee. fi nga xamante ne tey sa jabar mi ngi def li ko war. Mhm. jox na sa yaay cër mais sa yaay moo accepté wul sa jabar. Mm, man ci sens boobu laa waxe mhm. xamul nooy téye sa yaay. xamul nooy téye sa jabar. mais loolu góor gu responsable rek moo ko mën. moo tax ma ne góor ñi tamit dañu war a responsable. waay xam rôle yaay ak rôle jabar ak rôle jabar. mais jabar tamit. Mhm. nga xam ne yow sa rôle sa rôle ci biir kër gi lan la yow yaa war a remplace sa goro ci biir kër gi xam nga noo koy remplacer sa goro ba muy nekk xale. loolu ci digg ndëndam. Mm-hmm. na mu téye woon këram gérer ko léegi dafa waroon noppalu. léegi lan la yaay loo bëgg yaay am ndékki yaay am añ yaay lu la dal yaay am lii yaay am sa argent de poche yaay am sa lii boo ko amee nag laa wax. boo ko mm-hmm. amul doo ko sàcc boo ko amul waaye doo ko fowe. Mm-hmm. mais loolu nag yaay ji dafa noppalu. Uh-huh. yow yaay taxaw taxawaayu kilifa ci biir kër gi. des fois da ngay ñëw pour ressembler. defar ni ko olof di waxee yor sa pusa di ñaw. dëgg la mais est-ce may temps boo ñawee. merci beaucoup te looloo am léegi te xale yu bëri bëgg nañ sëy mais malheureusement. Euh, may ñu leen fu ñu sëy may ñu leen fu ñu wala may ñu leen fu ñu defaree. Hmm. may ñu leen fu ñu defaree léegi nag du ko kooku nag pour mu mun defar day xaw day xaw a jafe. day metti ndax yow bu dee da nga dugg si dañu commencé laa commencé laa kii ak ay problème di la gaaruwaale ak ay affaire yu kast yooyu noonu. foofu noonu fan ngay amee temps bala ngaa résoudre problème boobu noonu euh, yeneen day daal di ñëwaat kon léegi du coup pour nga loo xam ne di nga ko mën a ñaw nag day dem problème mhm. kon moom mën lépp ci famille bi la mhm. ndax ñoom te doo def lu baax ba mu gis ka nag say noonu bu nangoo seen pexe jubul jubul sama yaay moo may wax loolu mm-hmm. kon léegi yow sa noonu ko nga xam ne da nga dugg si mu euh, mu lay gaaral mm-hmm. di la wan ne la bëgguma la mm-hmm. bu xëyee bëgg la rek c'est parce que yaa quelque chose am na loo xam ne am nga ko de plus Euh, moom la gis. wala mu bëgg laa jekku. wala mu waaw merci ndax dañuy wax ne sa noon boo ko bëggee euh, sa inam ennemi boo ko bëggee jekku dëgg dëgg. danga koy jege. bis boo ko jegee danga koy am. Mm. léegi nag moo tax ma ne xale yi nañ gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax waaye tamit mag ñi nañ xam ne seen sëyu euh, ndaw ñi ñoom ñoo ci war a jàpp. Mm-hmm. ñoom ñoo war a defar. Mm-hmm. bu dee xale dafa ñëw ci biir kër gi sax nekk beneen maanaam nekk benn waaso boo xam ne bokkul ak yéen. Mm-hmm. ngalawaay jël ko aj ko ca kaw. di ko tël. wan ne wan ne waa kër gi de kii bokku ci ñun moo tax ma bëgg ko. Mhm. ndax amaana bu bokkoon ci ñun sax su ma ko bëggee da ngeen ne euh, li ma bokk ak moom waasu moo tax. Mhm. mais pour wan ne ne sa gëm yàlla foofu la ko nit ñi nattee. Mhm. pourtant moo kii bokkuñu waaso de mais da koo jël ko def comme doom. bëgg ko xam nga loolu dafa neex. Mm-hmm. dafa neex ci xol mais am na parents yu koy def mais parent yi nga xam ne defuñu ko man ñoom lay waxal. Mm-hmm. amaana nous sommes pas des donneurs de leçons. Mm-hmm. mais am na lu bëri loo xam ne dañ koy xam te dañ koy gis loolu moo tax ñuy waxtaan ak ñoom. te ñun suñu ay lañ wala ay suñu nga xam ñoo njëkk yi tamit suñu ay mag lañ. ak suñu ay rak. am na loo xam ne bu see sa parent mu ngi koy def sax yow xale bi génnee ko ci. ndax dañuy wax ne xel puso la xale mun na ko for mag mun na ko for mais am na njëkk yu baax. am na njëkk yu baax. am na goro yu baax. am na goro yu baax. waaye am na njëkk yu bon am na goro yu bon <laughs> <laughs> c'est vice versa léegi nag du coup nag ñi nga xam ne ñoom ñoo safaanu man sax ñoom ma tax di wax mm-hmm. ndax ñoom laa bëgg ñu xaw a soppeeku tuuti mm-hmm. léegi nag ñi nga xam ne dañoo safaanu ngalawaay ki nga xam ne euh, sa sa sa doom da koo jël indi ko ci biir kër gi def ko comme sa doom yow itamit ku góor ki bu dee dangaa dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy géer euh, maanaam ñu may la fa soxna waa kër googu tamit def leen comme seen comme comme

nit sa set wi mhm. yaa leen gën a set di la bedd mais ku sa doom ku sa doom ku sa doom indi moom ci biir kër gi boo ko tamee tam nga sa bopp parce que xam naa ne mook sa doom yee fanaan yàlla juri <laughs> boobaa boo tamee tam nga sa mel ni technicien bi da doon sànq ne heure bi jigéena na mhm. ndeyaa mhm. da ngay euh, wax sa dernier mot tàggatoo mu ngi noonu tata tey nag thème bu am solo macha allah. internet yi nag indi woon nañ ko indiwaat nañ ko. Mhm. ngalawaay nag bu leen ñu ko laajaat. <laughs> doy na xam seen diggante ak ñun. te xam lépp loo xam ne dañ koy indi rek da leen di neex mais nag dama leen di tooñ doon. ba pare Ndaya doguma mhm. la si biir euh, émission bi passé am na ku ci doon demandé. Mhm. PDG pour que moom dafa bëgg a ñëw VA TV. ok. maanaam daal émission bi mu ko dé dégloo xaw ma dañ ko laal je ne sais pas où. bëgg na ñëw fii. bëgg na fi waxtaan bëgg na toog léegi pour joxe adresse VA TV mu ngi nekk ci juuti bi. dëgg la waay ci daral bi. waaw daral bi. boo ñëwee ba ci kii bi rek ci daral bi waaye tam ci. bi <laughs> nga xam ne moom mooy euh, banque bi. banque bi ci banque bi juste rek. banque bi juste. Mhm. am na benn mbedd bu duggee mbedd banque bi. kër banque bi mi ngi nekk nii. Mhm. jàkkaarloo mais boo rombee miiram banque bi ci mbedd mi rek VA nga ci teg benn. wala sax bu taxawee foofu noonu ci banque bi bu laajee ana VA fu mu nekk. amaana mën nañ ko ko wan ko ko ah. ci juuti bi ci mbedd bi. Mhm. mbedd bi mais nag day ñëw ba ci ba romb banque bi. waaw fi yi mooy fi banque yi aligné mhm. banque bi ci mujj mu daal bu jàddee. wala bu wootee ci numéro yi. ñu daal di ko koy ñu daal di koy tegtal mu ñëw. mu daal di ñëw waaw képp ku bëgg a ñëw daal Veya ñu ngi lay xaar. Mhm. képp ku fi indi sa thème sa jàq sa jaaxle boo ñëwee incha allah bu ci yàlla àndee suñu borom bi. dinañ ci jéem luñ ci man waaw dinañ ko waxtaanee jéem ci lu ñu man tamit incha allah. incha allah di wax nag bon volonté yi aussi ñu bàyyi xel Veya. Mhm. bàyyi xel émission noo ko dundee parce que bëgg nañ tamit ndeya émission bi nekk émission boo xam ne bonne volonté yi dañuy accompagner àndandoog ñin ba mhm. yenn problème yi ñu mën a àndandoog ñoom di ko résoudre waaye tata surtout tamit ñi nga xam ne ñooy sponsors yi les sponsors nañ leen woo bu baax baax ñu daal di ñëw table bi na lool wéet na lool te mhm. ko war a mën a ñëw wéetali kon nag xeebuñ dara mhm. képp ak loo munti jaay dañuy woo soko sim mii noonu ciment yi ñoom ñoo ñëpp daal ñoom ñëpp jarul sax ñuy tudd li nga xam mooy entreprise yi mais ñoom xam ne seen bopp te képp koo xam ne gis nga sa bopp ci émission bi rek ñu ngi lay woo nga daal di ñëw mm-hmm. alimenté li nga xam ne moom mooy table waaye tamit jaajëfal bu baax a baax les fidèles téléspectateurs ak tamit les ñu ngi leen di joxaat di daje ni ki euh, ëllëg incha allah seen beneen tam fii si ko dundee ak VA TV lépp fay neex <laughs> waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow tamit. ah mm-hmm. sama doom ji man it maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. sama mm-hmm. doom yi nee naa leen man bu ma leen gisul damay wéet. bu ma leen gisul duma am amuuru. kii bi daal dëgg la envie daal doo ko am waaw waaw envie bi duma ko am <laughs> bijou tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla taneel ko waaw mu dellu dafa xaw a tawat rek mais place am mi ngi fii bu soobee yàlla place am moom lay xaar incha allahu bi dina dellu si waat ci place pour ñi nga xamante ne ñoom

Mm-hmm. armeel yi benn na géwél bi géer bi lawbe bi ñeeño bi ñëpp benn nañ mm-hmm. ki bàyyi kër yaayam bàyyi kër baayam sëy si sa biir kër yàlla takk ko nag ci aras bu leen mm-hmm. fàtte ne yàlla mooy takk say doomu aadama takkul say dëgg la yàlla mooy tànn boole ñaar doomu aadama tànnul boolewul lépp ci yàlla lay jóge te yàlla bu tasul sëy bi sëy bi du tas kon ngal la bàyyi leen yàlla ak li mu décidé ngal la bàyyi leen yàlla ak li ko neex ak li ko soob ñu gëm ko Mhm. ñun ñoo ne yàlla képp kese dong amul jege yàlla amul dendandoo amul dara. Mhm. kun fa yekkoon. ñu bëgg ne li mu teg décidé ko ci table ji ñun dañ koy jéem a dindi. Mhm. ah boobaa buñ ne ñun dañu gëm yàlla. Ah, war nañu seetaan suñu bopp. xam ne juste xoolal suñu bopp. suñu. ñu xam ne ñun ñëpp benn la àddina la te àddina bi ndeyaa dama tiit. ndax boo xoolee dëkk bi ni muy demee dund gi cher na. dëkk bi metti na. Mhm. ñu ngi gaañante ñu ngi xasante li ñuy metti ñun ba mën ñoo gaañ ba mën ñoo rey mu ngi jóge ci suñu moroom. dañ mhm. leen defaraat taxawaay. Mhm. manipulation bi. injustice bi lépp lu waay boo ëppee ni doole wan ko ko. waaye. allah. ndaya juróom-ñaari mètre percal moo ñuy tiim. moom lañ ñuy laxase. pax la ñuy dugal sànguñu président bi ministre bi. ki am ki amul ndool bi yalwaankat bi lépp ñoo yam mm-hmm. waaye nag bu ñu xesee ba dëggu biir ba mais ah am na fu ñu. dominante de mm-hmm. ci jëf ju baax. ju baax ci wax ju baax. Mm-hmm. ci fédéré boole. ñaan yàlla fitna yàlla bu ñu ko yàlla may ci Sénégal. du dëkku fitna xamuñu fitna. dëkk jàmm la ñu woote. Mm-hmm. dëkk salaam la ñu woote dëkk maam ji Maalik dëkk sëñ Touba. Mm-hmm. dëkk sëñ Babacar sëñ Fallou baay Laay Baye Ñas ni ma koy waxee man bu may ñaan ñëpp laay def si bool bi ndax ñëpp buñ ma wuy see mu neex. te mm-hmm. kenn mosu see tas sama yaakaar nag. saa bu ma leen ñaanee ba tudd leen sama yaakaar du tas. mais wax ne nañ leen ànd booloo nangoo uufante. naw xale yi yërëm mag ñi mag ñi uuf xale yi. dëgg la jàmm na ñooy sëñ Saliou ko waxoon. wa jàmm na ñooy. ñu leen di wax nag seen émission noo ko dundee. fii la yam di leen jox digg daje ci beneen numéro fii ci VA TV di gërëm nag ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci régie bi sëñ Fallou Galas Baye mbenn ak ki nga xamante ne mooy aadama mhm. kontaan nañ ci yéen ziar leen bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro bye bye.